suñu autorité sénégalais yi la ministre des transport ngir yàlla ak yonent bi yaa xayti mu laal compagnie yi mënuñu perte Sénégal amul benn compagnie bu mën a perte Sénégal Air France mënul perte Sénégal parce que clientèle business bi ñu am fii ak affaire amuñu ko fenn ci Afrique fu dul Côte d'Ivoire Emirates mënuñu perte Sénégal mënuñu ko donc lan moo tee suñu ministre des transport bi teg leen na leen bu ngeen fi mënul indi avion yu baax sénégalais bu ñu defee escale fale Dubaï bu leen leen mënul dugal hôtel su fekkee mënu leen def qualité service bu baax dañ leen di arrêté lu tax yaa xayti mu laan ñu wax loolu parce que buñ ñu ko waxoon problème bi réglé Côte d'Ivoire bi ñu ñëwee Air France par force à 380 ngeen fi indi seen 777 yu màggat yi dootu fi ñëwati dañ leen indil à 380 deuxièmement pourquoi yow ngay jóge Dubaï dem ba Guinée romb Sénégal pour lan pourquoi le ministre des transports di accepte loolu nga def 13 heures cest ngay dire nga romb Sénégal dem ba Guinée jógewaat Sénégal ñëw jógewaat Guinée ñëwaat sa pour lan man dama naan la parforce force da ngay taxaw Sénégal nga déposer Sénégalais yi Sénégal ak Guinée une la nga dem Guinée jël Guinée indiwaat leen dellu pourquoi pourquoi ñuy romb Sénégal dem ba Guinée ñëwaat Sénégal pour lan. wala ñu dem Mauritanie ramasser Mauritanie. nit pour lan ñëw Sénégal bref ci gàttal daal. mais nag Oudé aussi ni mu la gisee rek la lay ëwale may mu ne loolu yëpp xam nga lan moo ko tënk mooy àdduna soo sous-développé ñàkkal sa bopp fayda amoo dignité nationale dañ lay traité comme n'importe quoi comme de la merde te loolu moo ñu dal maanaam amuñu dignité nationale lu ñu def nangu nañ ko ñi ñuy jiite seen yoon newul mais gis nga ni ñuy transporter say nit ci avion dafa bokk ci indicateur la ci ñu ñu respect ni respecté sa réew ci àdduna bi tey boo dee dem Chine avion yi gën a neex ci àdduna bi lan lay dugal parce que ñoom dañoo am matuk xëy suba développé seen réew ñëpp bëgg faa dem ñëpp di fa dem compagnie yëpp soxla leen ku dof dof lu indi woo fa lu baax ñun la bu fi ñëwati da boo fa ñëwatul làkk ñàkk xaalis bu dul jeex donc may mun a président bii di ñëw yaa xayti mulaan nañu am dignité nationale nañu bàyyi politique politicienne bi te concentré wu ci intérêt réew mi